je suis plus que content ni ma kontaanee sax dafa ah. ëpp est ce que mës naa kontaanee nii waaw man jaamu jaamaatu Sëriñ Tuubaa bi di ziar si Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ah ku ne xam na ni Sëriñ Muntaxa moo fi Sëriñ Tuubaa ñëw di ko ziar ah vraiment mu demee kon dama xam ni sëñ rek a def lépp daal li ma lay mën daal mooy kontaan naa man dama tiit sax parce que foog naa su ma ñëwee xam nga dina ma xoolee bëtu ñitu ñitu saayir waaye bi mu may jàppee di ma di ma ñaanal dima ma wax maa ngi lay gërëm ñaanal di ma wax ñu ngi lay ñu ngi lay ñu lay ñaanal ñu ngi lay sàmm tuis mo lek ma lekk loxo bi sax yàlla mu bal tuis tuye demo ma dama dama tiitaat daal dama tiit que euh, tiitoon ñëw ci kontaan naa trop waaw kontaan na trop bi mo dàq ci magal billahi wallahi wa taalahi musuma magal bu neexee ni barki cheikhul khadim suma yaay la suma yaay la ndax moom ak suma samay waajur lañu woon donc man laa ci kër gi waaw ma ci suma mag sama xarit Mamour Lo ah vraiment muy nit ku baax ah bi ñu ñëwee daal man daal li ma la mën wax daal mooy kontaan naa waaw mais man sama projet ci xale yi du jóg ci man jóg ci man mais tey moom kontaan naa ah kontaan naa. في كل زار وفي سفر هماني على ما هم مع الحس والسفر